Euh, bu nes ki see ñu fas yéene fekkook yéen ci xibaaru euh, yéenekaay yi euh, fas yéene cee dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. président de la jox sa wàccuwaay. naka yitte yi. di am mbégte di jàkkaarloo yow sax ah. lool ba. jërëjëf alhamdulilah c'est très bien passé. waaw ça ça a été. alhamdulilah jërëjëf Seydina. Walf waaw digital beeg Adama Ndiaye ci machine. <laughs> ma ngoog l'équipe technique matinale. mangoog euh, Seydina itamit ci matinal gi nga xëy si ndax euh, trois heures et quelque nga yeewu ngir euh, béy si waar ci waar wi <laughs> ñoo yéente <laughs> jërëjëf Seydina ñu bëggoon a yee askan wi nag ci biir réew mi fanaanu ak la mu yendoo démb Walf Quotidien xëy na ci waaw Walf Quotidien Abdoulaye dafa xëy dellu la presse demandé ni lépp ni ba li xam mooy bàyyoo ko ci góor gi jëm ci tasukaay xibaar yi Cheikh Niass nag génn na yëkkati kàddu di ñaawlu kon boo du côté gi nga xam ne gouvernement bu Sénégal wane ne ko ci ndax gis nañ ci jamono ji nga xam ne groupe de presse bu mel ni Walf Fadjri jox ñaar fukki millions ci ci jamono ji les groupes de presse yu doy ni Walf jox lu ëpp téeméer million ak lu teg la ko yéene kaay gi mi di Cheikh Niass jàpp ne lii daal wax dëgg yàlla neexul ba neex waaye eh, ak bodukaté ak par rapport dëkk da cee woon ba tax mbir yi du ko bàyyi mu jàll eh, ni ki aljuma ji dana fas yéene jàkkaarloo taskatu xibaar yi ni ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre lay doon fii dimanche ji di yem ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre mu sitting sitting boobu ne da cee seen jaay

ñoo dikkee. révélation yéen a kaay xëy dellu si waat ci convoi Khalifa Sall bi nga xam daal moo di ci euh, dañu ko téye fële ca fi mu euh, ko de euh, lañ ci jublu lañ lañ lañ teg ci loxoom daal mooy que loo xam ne lu mu ñaawlu moom Khalifa Sall ak ñoom noonu la ko yéen a kaay gii di révélation lam ñu jukkil. yéen a kaay gii di l'info ne mbir yi bu football bon daañu wax ne Khalifa Benno Bokk Yaakaar daanaka Euh, nekkuñu ay ñu fair play noonu la ko yéene kaay gi leen foo xëy fësale ndax mënuñoo nangu si jamono ji nga xam ne ñu ngi bàyyi seen candidat di wër Sénégal di wéelu ci jamono jooju ñu ngi xañ candidat yi fare ci opposition bi kon ñoom ñu wàcc ci mbedd mi manifester comme ñëpp maanaam amal seen caravane comme ñëpp noonu la ko yéene kaay gi di leen foo xëy fësale Abdoulaye yéene kaay geneen di tribune yéene kaay gi di tribune ne Amadou Ba maa ngay battre campagne ci jamono ji lañ moom euh, du ñu mobiliser fenn noonu la ko yéen kay gi xëy fësalee Malick Gakou ma nga a dugg na autorisation Khalifa Sall na ko noonu bugaan ngay dëne boo fàttali ko ay la ko ci laaj ak tontu gi ci diggante ak suñu yi moom juruñ ci ko jëwoon mm-hmm. euh, wax relation gi ci diggante mag Macky yi kii tan ay kàddam ak yu ne ñiy wër di wax na ab diir gu dox ci diggante ak président Macky Sall nee loolu diir amu ci yéenam ak bëgg-bëgg mooy liggéey Sénégal loolu moo tax mu samp ndëram noonu la ko yéene kaay kii di laas xëy fës la yéene réew mi côté réew mi yéene ne grand politiciens yi ak société civile yi ñi nga xam ay agressé lañ ci wàllu droit ñoom ñu yëkkati seen kàddu kon di jubbante nee nañu la nga xam ni def na ko jëmale ko ci euh, fiche fiche de parrainage yi loolu moom du dëgg du yoon noonu la ko yéen a kaay gii di réew mi xëy fësal yéen a kaay bi di yor yor yéen a kaay gii di yor yor yi homme a matt euh, bi di Sud Quotidien moom dafa xëy sax laaj bëgg a xam suñu euh, administration bi lan la ñuy suyee jamono ji Euh, ndax ñoom lañ doon xaar si ñoom mooy ak mandute euh, te day jaaxaanaay bañ a far fenn waaye dañ gis ne def mu toll nii ña ngay wane seen péete jëmale ko ci gouvernement bi le euh, tax yéen kaay gi Sud Quotidien xëy tey ji daal seen seen la dalal moom mooy président coalition Jàmmi Réew mi nekk tamit candidat ci élection présidentielle 2024 yi dëgmal ci ma ngay wax la nga xam moo di programme am ak fa nga xam fu la bëgg a jëmale Sénégal bu yàlla defi kon dégg bi ci élection yooyu de. yéen a bi di libération. Barça wala Barsaq Ablaye nee nañu dafa am ab gaal goo xam nga solo ak juróom-benn juróom-ñetti fukki doomu aadama ñu si bëri ay jigéen lañ ak ay tuutànk gaal googu nag dafa réer fukki at fukki fan ak juróom-ñaar ngi nii ñu ngi koy wër waaye mënuñu koy teg bët. tax Boubacar Seye yëkk ay kàddam kon di di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu jël ci ay matukaay. ngir sauver xale yooyu li ak jigéen yooyu li noonu la ko yéene gi xëy fësale samedi nag di ñu génn am lu ci tolloo koy junni ak ñaari téeméer ak fukki benn doomu yoo xam ne nii Sénégal gi lañu bàyyeekoo teertu ne teeru nañu fële ci Espagne mm-hmm. yéene gi moo xëy fësale men ñi seen yi nag moo doon dem fële ci Espagne waaye ñi yóbbu dañ leen nax ndax ñu ngi leen mujjee indi fii ci Ngor ña si def yóbbu leen fële ci amu sax génnagul tefes yéen kaay gi di la quotidien ci solo ko junne ak ñaari téeméeri doomu aadama yoo xam daanaka dañ leen débarqué débarqué nañu ci archipel bu mm-hmm. euh, îles Canaries euh, nañ wax ne euh, mucc nañ fa daal noonu la ko yéen kaay gi am na ab gaal koo xam ne nii ma nga teer fële ma nga teeree ci amoo kat noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale soleil lam ñu dikkee vente aux enchères mu soxal Léopold Sédar Senghor ay mbiram moom la amoon yéen a jaay fële ci France waaye président moo ci teg loxoom nee nag loolu jaay saako na daal ci ministre bi nga xam ne xam ñoom la mbir yi ñoom ñoom ñooy jaay mbir yi euh, ñu wax daal naka lañ ko mën a Sénégal ndax jumtukaayu fa Léopold Sédar Senghor Sénégal yitte woon nañ ko noonu la ko yéen a kaay kii de la soleil xëy euh, wax ci sunu kayda yi ak seen taxawaay ci euh, weekend bi ah. mel ne ni ba fu mu toll ñu bëri ñu ngi koy coow euh, Boulaye Dia aussi boppam ba seen attaquant sénégalais gars daal ne week bi daal week la boo xam ne nii euh, week daal bu dox la ci suñu gars yi noonu la ko yéene kaay kii di stade xëy euh, suñu lamb ñel la face à face dox ci diggante Ama Baldé ak di Modou Lo